li sabab bind bokk na ci lii ko sabab mooy ni gisee justice suñu gis-gis ci justice mooy euh, nit ku nekk euh, même boo nekkee magistrat ci sa wàllu liggéey yaa ngi def sa liggéey normalement euh, boo la neexee nga toog nga yem ci liggéey boobu mais ñun dañoo jàpp ni nit ku nekk boo nekkee ci benn secteur sa waru gar la en tant que intellectuel boo gisee loo xam ni day jëmale justice bi kanam wala jëmale secteur bi kanam nga wax ko wala nga def ko wala nga bind ko euh, ci taxaw boobu tey tànk boobu nag la ñu taxaw en tant que acteur en tant que intellectuel gis nañ ne justice bi euh, war nañ ko mën a jëmale kanam war nañ ko mën a soppi ci ay fànn pour mu gën a dëgër lu moo tax ñu ne dañ koy bind te loolu tamit damay damay damay continuer parce que loolu c'est important euh, mën nañ gis nii da ngay critiquer conseil supérieur bi mais critique boobu dama jàpp ni critique constructive la maanaam critique buy defar la euh, boo gisee loo xam ne baaxul loolu defe naa suñu diine ak suñu yëpp moo ñu ko sax sas foo gis ne lii kat baaxul euh, nga wax ni nga wax walla nga bind boo xam pour nit ñi euh, soppi ko pour mu gën a baax donc esprit boobu la ñu bindee esprit constructif pour mën a seet lan moo gën a mën a jëmal justice bi kanam lan moo gën a tax conseil supérieur bi gën a gën a mën a def liggéeyam. parce que conseil supérieur de la magistrature dafa nekk benn kuréel boo xam ni dañ ko fee teg pour mu gérer carrière magistrat yi pour mu garantir seen indépendance pour justice bi gën a dëgër mais gis nañ su fekkee da nga laaj même acteurs yi ñoom seen bopp dañ laan la ñu ci conseil bi nu muy doxee li tax kontaanuñu ko nag loolu mu ngi ci doxalin conseil supérieur bi ak nuñ ko tëggee moo tax ñu ñu jàpp ni bu ñu soppee tëggin bi soppi doxalin bi. juste conseil supérieur boobu dana mën a gën a def liggéeyam te boobaa justice bi dina gën a dëgër te justice bu gënee dëgër gën a am indépendance loolu intérêt justiciable la ñu ñuy àtte man dama jàpp ni confiance mënuñu ne confiance amul parce que chaque jour euh, di nga gis ay centaines ay téeméeri nit yu dem tribunal ñu leen di àtte yenn saa ngi gis nag ci benn dossier boo xam ni nu muy doxee da lay woon ni xëy na nit ñi dañoo jàpp ni wóoluñu justice moo tax ñu defee loolu mais Euh, lu te loolu c'est valable Sénégal valable na fépp euh, doxalin nu ñuy nu ñuy nu ñuy nomee nit ñi nu ñu leen di tànnee loolu mën na am jeexital ci confiance bi nit ñi di am ci justice bu fekkee nit ñi dañuy war ki ñuy atte dem na si jàkkaarloog koo xam ne wóor na ko ni kii dañ koo tànn ci euh, ndax compétence am ndax jubam ndax intégrité am bu fekkee loolu moo tax nag loolu dana tax mu gën am confiance ci atte bi loolu moo tax ñu ne donc il faut que ñu changer processus nomination bu il faut ñu changer conseil supérieur ndax tey conseil supérieur exécutif moom mooy choisir nit ñi nu mu ko neex ku mu neex nga falu ku mu neexul doo falu ku mu neex nga am doom ndombu tànk ku mu neexul doo am doom ndombu tànk te euh, kenn mënu la wax critère bi wala critère bii lay appliqué moom mooy tànn critère yu ko neex appliqué ko nu mu ko neexee bu ko neexee mu seet koo xam ne ba yenn saa nag mu tànn ñoo xam ni euh, ñëpp xam nañ ne dañoo jub dañoo mën a liggéey yenn saa mu tànn ñoo xam ne ñi duñ ci d'accord léegi nag Euh, li ñuy appliquer li nga xam ne enseignants yi ñu ngi koy def fii ñun loolu rek la ñu laaj maanaam nañu teg benn kuréel teg benn processus boo xam ne dafa leer ba nga xam ne bu ñuy tànn nit ñi dañ leen di tànn parce que dañoo jub parce que dañoo mën a liggéey parce que et cetera. loolu bu ñu ko defee man jàpp naa ni comme Sénégal am nañ chance bu bëri na ay compétence macha allah yoo xam ne dañoo mën liggéey xam xarañ ba pare jub jàpp naa jàpp naa bu ñu defee loolu loolu dina tax justice bi gën a dëgër dina tax confiance bi gën a yokku dana tax tamit acteurs yi nekk ci biir justice bi ñoom ñu gën a sawar si seen liggéey ndax frustration du am ku nekk da nga xam ne am nga sa chance bu fekkee liggéey nga rek da nga mën a egg fa nga bëgg a egg. nii waaw mais xam nga àddina moom da ngay def li nga war a def rek parce que tànk yaa ngi tegu si yoon di def loo xam ne wër nga ne sa devoir ngay def li si des moom da ngay bàyyi ñu wax lu ñuy wax. nga nekk sa jëf man damay nekk dans le temps de l'action aw ma temps wu euh, di xool nit ñi li ñuy wax lu ñu dul wax parce que l'essentiel nit ku fekkee da nga jub def li nga def li nga war a def euh, nit ñi dañuy wax rek mais duñ la mën a dara